ñoo waroon organiser ñoo nga waroon organiser CRD bi yëpp ñu ngi toog ndog yow fii te képp koo soxla si moom dara des taxaw li mu si war a taxawee waaye nag du tere wax naa ko préfet léegi lu fas daw daw daw daw nañ ko labbali du tere bu lii passé même bu dul CRD nañu xool façon boo xam ne ah nañ si gën a dugal suñu loxo pour affaire bi gën a organiser ndax mbooloo mu toll nii fu mu bëri ah il faut ñu gën ko organiser waat tekkiwul ne organiser wul nag. macha allah ni mu mel nii rafet na taaru na waaye yow nag xam nga ne bu baax a baax a baax lu mbir mi taaru taaru bëgg nañu mu gën faa taaru lu mu organiser organiser bëgg nañu mu gën faa organiser te sécurité dafa bokk si loo xam ne si jamono bi daf ko laaj am na ñu bëri ñu nekk ci biti xaju ñu dugg fii il faut ñu xool ñu tërlaate loolu avec sa accord ak sa consentement yeneen mais li nga xam ne nag wax nga fii te mënuma si ñàkk wax mooy yóbbante yi wax nga yóbbante si président de la pour li nga xam ne mooy ndaw yi si ñu utal leen fu ñu jàpp loolu vraiment dinañ ko yeggali président de waaye mën nañ la wax ne mu ngi si démb rek lañ def conférence territoriale préfet maire yaa ngi fii pour évaluer si biir région bu nekk si Sénégal projet conseil de ministres yi président defoon ndax conseil des ministres yi li ñu fa arrêté woon si projet programme ku nekk liñ si mu def ak lu si des te defuñu ko si xayma biñ def ñun mën naa wax ne quatre-vingt-un pour cent engagement yi ñu jëloon maire a ngi nii fekkee na ko yeneen maire yaa ngi fi chef de service yëpp a ngi fi engagement yi président de la BIC Macky Sall jëloon si conseil des ministres décentralisé bi quatre pour cent yëpp réalisé nañ am na sax yeneen yu si yu ñu réalisé yu bokkul woon si engagement yi waaye bu ñu la nee na nga xayma dara da ngay xayma li ñu la waxoon rek waaye leneen boo ko si yokkee day fausse sa calcul yi waaye daal pour wax na ne ñu ngi si yoon bi waaye surtout li li tax ñu organiser conférence territoriale boobu mooy président dafa ne dafa bëgg si développement réew mi benn pàcc du ñee moroom pour benn pàcc ba ne ñee moroom ma ku nekk nañu xool si sa biir région li nit ñi soxla foofu pour ñu mën a am xëy mën a nekk si condition yu baax pour ñu wax ko ko mu mën si taxaw man nag fii si région Thiès dajal naa sumay gaa yëpp muy kilifa yi muy maire yi muy service yi muy ñëpp ñu ma loolu teg ko si table bi te naa ne loolu bu ñu ko defee ah si la day faral di wax ne dafa bëgg ndakaar nekk la première banlieue de Thiès Dakar nekk banlieue si Thiès nee naa ko loolu nag programme bu rëy la waaye li mu tekki mooy ñu fexe ba Dakar. dabu ci en tout cas Thiès dem ba dabu dakaar ba buñ ñu ko mun mun ko méngale moom potentiel baa ngi fi atu yaa ngi fi volonté baa ngi fi jàppale baa ngi fi président la mi si boppam dañ si jàppale incha allah fi may jeexale mooy beneen yóbbante bi muy jakartaay parce que man nag dama am benn jikko bu ma ñëwee si xew lu ñu ma wax du ma du ma du ma du ma waaf si dara lu nekk dama siy wax parce que defe naa loolu mooy yoon mënoon naa naxasaale teggi loolu dem gars yi ne gouverneur de tontuwul si mbiru Jakarta yi Jakarta yi ñun interdiruñ ko dañ ko dañ ko organiser interdiruñu Jakarta yi dañ ko organiser yow Iran da am sa oto oto bi dafa may këyit bu am am fu ba nekk mën a nekk si circulation bi Jakarta yi dañoo bëgg ñoom tamit ñu jaar leen foofu ba ñu mën a nekk si circulation bi il n'est question et il n'est normal que oto boo xam ne muy engin boo xam ne mu ngi daw si circulation bi di yëpp ay nit di daw di accidenté mu am ñu si dee mu am ñu si dee gouverneur Kaolack laa woon juróom benn at avant may ñëw fii soixante quinze pour cent nit ñi accident yi am Kaolack boo jëlee accident yi am Kaolack soixante quinze pour cent yi soixante quinze pour cent yëpp Jakarta la te ci biir soixante quinze pour cent yi au moins vingt cinq pour cent yi nekk am na am na nit bu si dee mu ne bëgg nañu xale yi am xëy bëgg na nit ñi am transport waaye bakkanu nit ñi si wat ñun tamit dañ koy sàmm ak moom yow yaa koy jàngale nag Seydina Omar dafa doon wax ne nit ku nekk duñu ko sàmmal na fexe mu sàmm ko ñun tamit bëgg nañu ëllëg si biir li ñu sàmm si wàllu boobu ñu tax si yi dañ leen wax nañu ut ay casque dañ leen wax nañ ut immatriculation dañ leen wax nañ ut yeneen ak yeneen ak yeneen ñu nekk des engins réguliers comme ni ko taxi si nekkee comme ni ko sa oto nekkee comme ni ko oto taal si la nekkee comme ni ko man sama oto man en tant que gouverneur nekkee bu ko boobaa ñu accompagner leen indi nañ fii ci biir région de Kaolack ca Kaolack d'abord man bi ma ñëwee Thiès ma indaale ko fii koo xam ne dafa am ay projet pour ñu régulariser leen waaye nag li war a dox ñëpp dafa am ci biir mbir mi yu si bëri yu si xew te man bi ma bi ma toog ñoom dama leen wax ma ne leen seen liggéey bi baax na ndax buñ ko teree dina am koo xam ne fi mu dëkk Jakarta rek moo ko fi mën a génnee donc bu dul bu dul Jakarta bu timis jotee moom du mën a génn këram du fi mën a delluwaat te wolof day wax ne kat genn wàll kasara moo gën kasara moo tax ñooñu il faut ñu bàyyi Jakarta ñu mën a yegg si ñoom waaye nag il faut aussi ñu organiser ko moo tax fi may waxee yow nii le préfet dafa jël benn arrêté de 19 heures à 20 heures parce que jàpp nañ ne 19 heures ba bëccëg ndar kàmb la lu gëri bu si mën a xewee sàcc yeeg vol à la tire yeeg tappale yi si bëri yëpp peut-être comme bëccëg la dina gën a mën a yomb euh, organiser fànq waaye guddi nag moom dafa lëndëm ànd ak caay-caay ànd ak lépp ci biir te li gën a bëri si caay-caay yu mu yu ñu mujj a gis am na suñu bëri jakarta yi ñu ngi ci biir waxuma borom jakarta yi waaye am na ñuy jëfandikoo jakarta ñu ngi ci biir te wax naa leen ma ne leen comme yeen seen bopp nag mun leen nekk seen alkaati bopp ba sepp si yéen ñi si bokkul ñun tam dañuy ñëw seen biir sepp ñi si bokkul ndax mbir mi dafa am ñuy gàmm am ñuy raas dem ñun di gàmm la amal affaire ñiy raas dem dañ leen delloo fi nga xam ne war fan la ñu war a dellu loolu man laa amul may wax si affaire jakartaay fi may jeexale mooy di la gërëm di la sant di gërëm kilifa fi nekk yëpp di la xamal ne vraiment ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ko ay année yu bëri ah, di surtout nag di la dénk ñaan pour président la République ñaan pour gouvernement bi ñaan pour Sénégal ba nawet bi nga xam ne yàlla may nañu muy nawet boo xam ne nawet bu rafet gum la yàlla may ñu yeggale ko si jàmm muy muy njëriñ si réew mi yëpp di ziar mbokk yi di ziar ñi fi nekk yëpp di la féddali di la féddali suñu disponibilité di la féddali suñu accompagnement di ko féddali mbooleem kër dina yi fi nekk ni ko président la bi Macky Sall santaane daf ñu wax ñun autorité administrative yi nañu fexe ba ñu accompagner ko à côté des familles religieuses ba famille bu ne mu moderniser la modé ak say activité ndax mu noo wax nit ki no ne naam te nekku fa balaa nga neen naam ne fa boo buggee nit ñi respecter famille religieuse yi weg leen continuer di nekk ak ñoom nañ fexe ba li fa war am yëpp am fa ci ci loolu président nekk ci loolu lañ nekk ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén i déwén bu déwén euh, bu ñëwee fii déwén incha allah fekk soxla yu bëri yi ñu wax jakartaay gi mel noonu yëpp fekk ñu réglé ko Sénégal gën a jëm si kanam ñu ngi koy yaakaar si mbooloo mi ti dara ñaanal nag loolu duñ ko fekkee mais nga tàbbal ko ñaan bu mujjantal gi ndi yàlla defal ñu loolu ñu ngi ñëpp di sant ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim